d'accord léegi est-ce que amoo mës ngeen am problème ci ngeen ngeen wax parce que yéen seen wax da ngeen koy jaarale si digg bi ah mhm. kii bu tooyee ngeen ne diw moo tooñ mhm. xam nga euh, est-ce que mosoo leen ci am ay retour yoo xam ne genre ne leen euh, façon bi ngeen koy traité c'est trop cru quoi ngeen di jaar ci digg bi yi moom ñu amuñu naxasaale mhm. dañuy jaar ci digg bi quoi est que mosoo leen ci am retour boo xam ne neexu leen wala franchement pour être honnête à chaque fois retour yu nice la ñuy am ci émission bi la, les deux seules fois où j'ai reçu des, des, des, des critiques, euh, des retours négatifs, mm -hmm. c'est par rapport à, à deux invités. L'un qui n'est pas venu d'ailleurs, euh, Monsieur M. Iacham Mbaye, je crois que c'est le directeur général de, du Soleil, si, si je ne m'abuse. Euh, Djatul euh, pourquoi Parce qu'est-ce qu qu'il a fait la veille Je ne sais pas. Mais euh, là, les gens déjà n'avaient pas apprécié Binko annoncé. qu'on l'ait invité parce que les gens apprécient de plus en plus l'émission et euh, ils ne s'identifient pas à certaines personnes. Ça, c'est le droit de chacun de dire, OK, telle personne, je ne l'apprécie pas par rapport à ci et ça. Koutinek a le droit. Euh, L'autre personne, ça s'est passé la semaine dernière. Lui, par contre, il s'est déplacé, il est venu. Moi, euh, euh alors, j'avais qui comme invité la semaine dernière euh, C'est l'animateur, là, euh, Tunkara. Mhm. Tunkara est venu. mais li ma jot ci ay ñu jot sax ci ay message de non pourquoi et cetera et cetera énorme donc euh, gars yi pour 98 euh, pour cent des des gens qui sont intervenus sur Facebook YouTube et toutes les plateformes digitales et d'ailleurs même le téléphone la la senti gars yi ils pas du tout apprécié l'invité lui-même parce que euh, en fait xam nga sénégalais tamit bu la xasee jàppal dara là aussi encore une fois am na ci liberté boobu mais maa ngi ci doon waxtaan ak Pape Djibril Fall juste après l'émission mu woo ma di ma wax ouais j'ai suivi ton émission avec euh, euh, cetera ñu ciy waxtaan ma ne ko man nag euh, lenn laa mës a def sama main parce que la veille j'avais reçu Oustaz Matar Sarr l'avant-veille j'avais reçu Oustaz Alioune ma ne pour man il faut aussi respecter la liberté de chacun c'est-à-dire que je peux ne pas t'apprécier mais c'est pas pour autant que damay tëj say say xalaat ak say gis-gis quoi donc mën naa bañ a partager say opinion aussi mais cela ne veut pas dire que aussi dama lay kii donc du à chaque fois damay may euh, euh, marge bu boo xam ne mën naa invité ku nekk du ma wax damay invité n'importe qui parce que ça va être un peu euh, damay damay lu nit yi mais je veux dire mën naa invité ku nekk par rapport ak say idées et tout ça jàppal bàyyi donc il faut aussi ni ma koy waxee même si on n'apprécie pas la personne on en a le droit mais aussi respecter ses gis-gis et ses opinions et ses choix aussi parce que life bi choix la c'est-à-dire aussi ñëpp mënuñu xalaatandoo de la même façon ñëpp mm. mënuñu gisandoo de la même façon donc man j'aime respecter ces avis là yi nga xam ne dañuy diverger ku nekk am sa xalaat war ko wax fii fii c'est une radio du peuple donc mënuma tamit euh, ñëw fekk si radio du peuple ba pare naan kii de mooy wax wala kële du wax je peux pas me le permettre ok par exemple am na lu mu fi jot a wax mm. euh, ko moo tax ma ne est-ce que amoo leen des fois ay retour yoo xam ne day gars yi da leen di woo di leen wax non di ngeen waxee si diw ak. non non non pas du tout. non Gaston euh, am na am na lu lu. non non pas du tout mais bu ngeen seetloo bu ngeen seetloo euh, demal ba ci ba ci biir. <laughs> Gaston c'est après suñu débat bi ci ses propos. qu'il a fait une déclaration pour dire je m'excuse parce qu'au départ il avait dit je ne m'excuse pas j'assume mes propos loolu la njëkkee woon mais bi mu demee ba affaire bi jël ampleur boobu nonu à travers l'émission d'Ekili euh, je crois le lendemain ou le surlendemain Gaston a fait une sortie pour s'excuser par rapport à ses propos parce que justement comme ça a été relayé il y beaucoup de gens qui ont dû euh, l'appeler et lui dire qu'effectivement Sénégalais de tous euh, bi s'est suivie sur toutes les régions. C'est la force de l'émission, mm à mhm. travers la radio, bien entendu, parce que euh, on est un peu présent euh, biir Sénégal. donc mhm. ni si bu ñu ko relayer loolu mu mu rectifier euh, c'est tout, à notre honneur aussi loolu loolu c'est c'est bon à signaler. mais non en fait euh, la parole est libre. c'est-à-dire que aussi am na lu xew ku ci nekk joxe si sa gis-gis c'est pas pour autant que dañ dañuy dañuy dañuy faral wala dañuy lii dañuy lay dañuy jéem a defar rek ku ci nekk da ngay joxe sa gis-gis. Mhm. maintenant on essaie au mieux de ne jamais déraper c'est